tey nag dama ñëwti seet si koo xam ne tàmm ngeen di gis ma di ko seet si jamono ji bu tolloo fii maanaam bu saison tëjee bay waaj a tëji muy kan Jax parce que li koy waral mooy des fois saison day ubbi ba tëj day nekk numéro un ci li muy def muy wàllum làmb ji en tant que promoteur wu lutte simple maanaam saa bu tëjee rek bu ñu xoolee xayma chiffre yeeg xaalis beeg finance bi day nekk numéro un loolu nag li ko waral mooy journée yi muy tëgg day bëri macha allah te tamit day tëgg ay mise yu am solo te itam nag saison baa ngi waaju ubbi te yaakaar naa ne moom moo war a ubbi saison bi ak lit simple loolu bokk na ci li tax ñu ñëw seet si ko ak tamit day moog mataar Ba bi nga xam ne fi mu nekk nii bëri na ay ñu ci wax ji daal bëri na ci moo fas yéene nag waxtaan ak Jax moom ba xam fu mu toll ci saison bi muy waajal ak itam dem ministre bi nu mu ko gisee monsieur Jax la gondol la golden boy loolu la gaa yi wax de. waaw jaa ngi moo ko tuddee woon <laughs> leen di ziar bu baax a baax. di kontaan si ñëw bi ah, muy ñëw. comme ni ko tubaab di waxee di leen ñaanal yàlla comme d'habitude yàlla gën a barkeel liggéey bi defal leen jàmm defal leen ndam ci li ngeen di def di profito di nuyu aussi ñi ngeen xam ne yëpp ñu ngi leen ñu ngi suivre à travers seen chaîne les informations de la lutte et di jot aussi vidéo e ak e, e, bind yi nga xam ne yëpp abu mu koy bind toujours chaque jour di ko yónni di ñu ko yónnee ñuy informé wu di xam li xew à temps am na am na solo Jax euh, li may fi fi may ubbeek yow mooy saison bi jeex euh, bëri nañ ko mu jeex si jàmm bi ñu xoolee xayma yi natt jàppal baay si yéen côté promoteur lutte simple yi mu mel ni comme ni muy demee rek d'habitude at yi yow yaay numéro un après yax yi jóg doog a ñëw suñ ne numéro bi nag mooy li nga dëgg ci ay journée ak li nga investir si wàllum xaalis loolu at bu jot day am bi bii ñu jeex nii noonu la demee waat non man du numéro damay damay damay investir rek man boo xawlee sax abu ci ay bindu abu lay xamee li may investir man de moom commencé laam damay tëgg di dem rek lu ma lu ma sentir rek loolu laay def du ma wax ne damay def lii wala arrêté lii wala lële wala lële donc euh, man maa fi nekk di def lu bari peut-être parce que yàlla moo ma jox boobu xol may defee peut-être am na ñu bëgg a def mënuñu def wala ñu bëgg a def te possibilité yi amul à part man Yaxya moo fi nekk le grand bi nga xam ne il est fidèle à ce bañ a xëccoog nit ñi ndakaaru moo tax muy tëgg ci région yi tout le temps wala bu waree ñëw Dakar sax exceptionnellement samedi lay jël pour bañ a daje kenn donc ku mel noonu moom la ñu war a gën a magnifier ndax làmb fi mu mettee mooy région yi mais du Ndakaaru voilà ñam naa ci bu ne xam naa jafe-jafe yi si nekk koo xam ne dafa jël option ne day tëgg juste ci àll bi rek kooku moom la ñu war a magnifier ndax euh, lu metti rek lay lay dund balaa ngay tëgg di nga sonn lool ci installation ba pare sonnaat lool ci désinstallation investir euh, ci secteur yoo xam ne boo xoolee àll bi ñu ëpp ci nit ñi ñu ngi ndakaaru di ut si alors tu vois donc nga dëkk ci di tëgg làmb bu nit ñi demul ah, bari fa souvent ay làmb la yoo xam ne day day jafe daal day metti financièrement voilà kooku la ñu war a moom la ñu war a magnifier waaw euh, kon comme comme moom la ñu war a magnifier euh, sa diggante ak Yaxya parce que yaakaar naa su ma jumul la fois passée for naa information que ni saison bi ñu jëm bu buñ ko fekkee te tal ko yàlla na ko yàlla def war ngeen a collaborer pour tëgg benn journée xaw ma benn journée nga war a tëgg wala ñaar wala ñett mais daal seen collaboration daa mel ni man dégg naa ko loolu est-ce que mën nga ko leeral. waaw non Yaxya moom yàgg nañ bëgg a tëgg ay tëgg journée xëy na peut-être ren la ko yàlla door a euh, matérialiser ñuy ñaan yàlla ay gis si jàmm liñ ci bëgg yëpp yàlla defal ñu ko parce que loolu defe naa pour avancement wu làmb la quoi. Mm-hmm. voilà pour avancement wu lutte simple la suñu mënee boolee ci benn jour wala ñaari jour wala ñetti jour lu yàlla def rek ñu def événement bu boo xam ne day doon événement XXL bu mag loolu day baax ci làmb simple waaw. Euh, soo nee benn wala ñaar kon fasu ngeen yéene mu yem ci benn journée incha allah. waaw non xam nga làmb moom comme ni ma ko man inspiration laay laay doxee voilà donc mën nañ tëgg benn yàlla def mu mu liñ ko niñ ci gis mu mu nekk lu rëy ñu bëgg a tëggaat beneen pour tëj loolu mën na nekk. mais du loo xam ne mun nga taxaw léegi tey ne dama koy programmer damay tëgg bi après tëgg bële non lutte simple demeewul noonu daal demeewul noonu voilà donc donc li li li concret daal mooy am nañ le 29 janvier arène nationale bu soobee yàlla alors bëgg nañ ci def une mise lu mu ndew ndaw ndaw 11 millions lu mu ndaw ndaw baa mu baa mu ëpp quoi lu mu ndaw ndaw 11 millions wala mu ëpp ko ci lutte simple waaw man def naa 10 millions man kenn donc su ma bokkee yax yakay <laughs> dafa war a ëpp loolu ah. Ah, c'est logique su ma mënee teg 10 millions Yaxya mun teg 10 millions waaw war nañu mun teg 15 millions wala 20 millions ñun ñaar bu ñu boolee waaw mu ngoog. parce que production Jax production moom comme ku ci nekk teg nga mise sax 10 millions presque kon yaakaar naa bu ngeen boolee ni nga ko waxee war ngeen mën a teg 20 millions. donc noonu la ñuy doxee l' làmb ji dafa am lu lu muy laaj pour egg si foofu voilà donc bu ñu liggéeyee si loolu ba egg foofu ci la ñuy natt à peu fan la ñuy fan la ñuy yemale mise bi. Mhm. incha allah mais lu mu dee dee na kon daal le 29 moom bu ñu ko fekkee tal ko incha allahu rabbi janvier mise bi moom lu mu mënti xew dina mat 11 millions wala moo ëpp ko sax. waaw bu soobee yàlla mën na ko ëpp waaw. waaw ça dépend rek ci làmb ji ni mu ni mu duggee daal. waaw parce que lutte simple dafa bëri ay ñama-ñama ci biir. waaw te dañuy bëgg li ñëpp daje. ñëpp daje waaw. collaboration wu Yaxya Jóob Yékini ak Jax lan moo ko indi. non yàgg nañ waxtaan maak moom dañ daan daje léeg waxtaan léeg mën naa dem këram ànd ak nit ñu waxtaan làmb waxtaan lu bari voilà affection bi am yàgg na am affection bi yàgg na am man dama ko daan supporter en tant que lutteur. donc euh, mais du ma nekk du doo supporter boo xam ne dafa duggoon ci affaire yi. supporter à l'écart la. voilà voilà donc mais avec ñoom Cheikh Ndaw ak yooyu dem naa fa plusieurs fois waxtaan ak moom. Mhm. këram mhm. waaw mu jox ma ay avis ma jox ko samay avis. Mhm. nañ commencé daaw xam ma daaw jekk ne dañuy def benn làmb. mu jëwul sotti ba ren la war a sotti ba ñu am date. waaw ren moom am nañ date. jël ngeen date bi mhm, jël waaw ba joxe ba moom joxe na caution bi sax un million. Hmm. waaw joxe joxe na caution un million ba pare. waaw waaw parce que date bi si turu Fata lañ ko jël. si turu man fekkoon na ma jël ba pare. si hmm. turu Jax le 23 23 octobre. Hmm. donc mënu ma teg ñaari date ci benn tur. donc deuxième date bi moom mu jël ko ci Fata. waaw noonu la demee. parce que yéen a collaboré ak Jax production. incha allah waaw le 29 yal nañu yàlla may ñu fekk ko ñun ñëpp ak tous ñi nga xam ne yëpp bëgg nañ lutte ba ñu egg si si jàmm daal mu nekk fête bu rëy pour pour la lutte simple loolu dafay dafa baax ci làmb ji daal. Ah, waaw daf ciy baax waaw. Mhm. Mhm. yéen ñaar bu bu bu bu ngeen waxee parce que bu ñu xoolee Jax ni mu structure am toll ak li muy def ak yax yi ni mu structure am toll li muy def ak yax ya doon tey kon war ñu xalaat sax ba miisu làmb xanaa romb xaama yaa ngi wax un vingt millions mais est-ce que yéen ñaar si seen gis-gis ci kanam est-ce que waru ngeen sax dem ba ñu xëy ñu ne miisu cinquante millions am na wala. war su ko mën a xalaat war na mën a ne. war na mën a ne lii tax cinquante millions ñëw organisation la organisation boo xam ne comme ni ñuy tëggee grand combat cent millions yi il faut ñu egg ci ci loo xam ne noonu lañ koy organiser sponsor yi mën a ñëw leen mën a ñëw leneen mën a ñëw ñoo ñëpp andi seen contribution ñu nekk loo koy travailler du point de vue marketing ku nekk mën si gis sa bopp bañ ci egg loolu bu amee dinañ mun a am mise cinquante millions wala plus parce que ñi nga xam ne ñoo si ñoo ciy gravité yëpp ku nekk dina indi contribution mais du caagane yax ya génne na 25 millions ja génne 25 ñu bëgg a tëgg rek làmbu 50 millions pour bëgg a tàngal tëgg làmbu 50 oo kooku amul intérêt làmbu lutte simple am na foo xam boo fa eggatee poche yóbbootu ko même boo amee doole ji poche yóbbootu ko man mosuma tëgg 10 millions boo am si bénéfice pertement laa def yi ma tëgg 10 millions deux fois yëpp dama perte waaw 10 million boo ko tëggee da ngay perte parce que mënoo mënoo ko rentabiliser. même amateurs yi ñooy seetaan làmb ji même amateurs yi. ñooy ñëwaat. donc il faut am leneen lu si ñëw ni ñu koy travailler ba mu mun a nekk lu rentable. Mhm. am na solo léegi euh, defe naa ne sason bi incha allah rabi léegi mu ubbi wala sax ubbi na man naa ñu administrativement euh, tey euh, saison bii tëj balaa may dugg ci bi war a ubbi ak li nga war a commencé saison bii tëj Jax am na lu mu ci déploré rek yu mel ni ki noonu wala. man léegi maa ngi beneen niveau ci làmb ji. maa ngi beneen niveau. parce que wax ju bari ji tamit du changer dara. donc tu as tes idées. Mhm. idées yi boo ko waxee tamit taxul nit ñi jël ko en considération donc jarul wax defal li ngay liggéey rek dem sa yoon quoi. liggéey daal ah defal sa heure bu jotee nga dem def li ngay def. Mhm. li la yàlla may nga def ko. Mhm. fexe bu mu nekk lu rafet loo xam ne nit ñi dañ ko dañ ko rafetlu bëgg ko. bu paasee nga noppi dem sa yoon. ça ne sert à rien parce que boo waxee lii ñu ne dafay saboter. ba waxee ñi ñu def ma contre xam nga loolu du avancer làmb ci coow li day bari rek amul benn njariñ waaw. Mhm. saison bi nga war ko ubbi yaakaar naa le premier octobre stadium Iba Mar Diop. waaw incha allah la yàlla dogal waaw. incha allah mhm. mise ñaata nga fa cent mille. deux millions cinq cent mille waaw samedi samedi premier octobre incha mhm. ma xoo gisoon ne wala ñu seetloon que ni Jackson daan tëgg ay mise yu ëpp loolu euh, ci Iba Mar lan moo tax nga indi ko ci deux millions cinq cent. non début de saison la début de teg lu raw loolu alors bu dee raw na ko aussi peut-être trois millions. mu passé wu ma ko. lépp ci ay contexte nga koy xoolee. parce que pour nga mën a teg yenn mise yi. Mhm. il faut nga xam ci li nga jëm lan la. Mhm. ubbi ubbi làmb kump kumte la. bu dee olof yu jub la kumte. mooy xamoo ci li nga jëm. parce que xamuloo kan moo am licence. kan mooy kan mooy renouveler. kan moo dul renouveler xamoo yan ba raffiné. Hmm. moo tax il faut faire très attention. ñaat yoon nga ñëw Adrien Senghor ñuy ubbi làmb teg 1 million gisoo gisoo mbër ñetti mbër taxaw si biti ne dañuy dugg ñu ne duñ tëggati làmb ji nañ ko puus parce que amul mbër boo tegee 2 millions 500 amul mbër nooy nooy tëggee 5 mbër 10 mbër dañuy ñëw bëri si làmb ji 10 mbër nit ñi dañ ñëw pour seetaan 10 mbër ah, wax jaa ngi foofu. moo tax boo seetloo année yi passé yëpp souvent damay bu ñu demee ba mu des 4 cinq jours damay dem CNG xool ak Maguette ñaata ñoo renouveler. moo xoolee nombre bi mu tuuti ma dem gisi président bi fi ne wax ak moom ne ko ah làmb ji war na ñëw dans cinq jours ou quatre jours temps de mbër ñoo renouveler ba tey loolu deful gala léegi may ñu ñi nga xam ne ñu ngi si àll bi nekk si tool yi di góob ak ay affaires yooyu te mënuñu ñëw renouveler delluwaat may leen jouru làmb ji ñu ñëw mu nekk benn ñëw ñoom tamit ñu comprendre ne waaw loolu logique na bu ko defee gars yi dañuy def seen visite médical def seen lii àndandoo ñëw si journée bi rek dugal ko man ma fayal leen seen licence jàppale leen si aussi parce que mbër yi day fekk jeexal nañ takk amatuñ dara loolu mooy gën a mettil toujours renouvellement bi départ bi ñaari bi mooy def damaa ren mooy de troisième ane bu ñuy def bëgg a def loolu hmm. mais pour le moment dañuy seetaan ba xam ñan ñooy renouveler pendant une semaine bu ñu gisee ne mat na nombre bi ñu xam tant mieux c'est pas la peine hmm. di ñaan su matul ñu ñaan hmm. te yaakaar naa ne dinañ ñu mayaat ni ñu daan may parce que loolu avancement làmb ji la bu ko defee yi mën a ñëw bindu ci jour bi bëri seen bëri. waaw am na solo. Euh, lutte avec frappe bi amoon nga ci daaw journée waroon ko tëgg benn mbër bi blessé euh, mbir moomu foo ci toll ak tamit saison prochaine est-ce que Jax yan euh, bëgg-bëgg la am mbam pour lutte afe frappe bi. waaw daaw waroon nañ def Cheikh Tidiane Niang ak Kaw Cissé mhm. yàlla def Cheikh bëre simple daal di si gaañu mhm. après ñu demaat quelque temps ba affaire bi jigee mu gaañuwaat muy deuxième fois. ba ñu waxoon si wax yu bari après mu am certificat de guérison ci fin de saison bi déposé ko donc dat mënu fa woon amaat pour ñu bëre alors ma jël seen licence delloo leen ko comme ñoom dañuy bëre simple ñoom ñaar ñëpp pour ñu dem bëri ji simple for dañuy for parce que le fait que ñu bloqué licence yi CNG dafay handicapé Cheikh handicapé handicapé Kaw Cissé donc noonu la demee woon ma delloo leen seen licence bi ñu leen delloo sax Cheikh wëroon na tuuti mais desoon na. mais terewul bëri <laughs> bëriwaat na sax ay ñaari ñetti gala ci àll bi voilà donc loolu parce que ñoom loolu la ñuy dundee alors saison bi war a ubbiwaat ñu war a programmer waat pour bëri combat boobu fan yële passé ma gis ci presse bi ñu wax ne Kaaw Cissé dafa jël beneen avance voilà donc dafa changé manager jëlaat avance pour bëri ci benn gala le cinq décembre alors bi ma demee CNG kero démb démb la mu defe naa démb pour renouveler sama licence simple pour wane ne dama war a tëgg. Euh, joxe caution Iba Mar Diop pour samedi bi parce que gaal gi laa ko bëggoon def mais comme samedi bi xam naa kenn jëlu ko ma ne autant loolu mooy gën simple ci amateurs yi nañ ko dem def Iba Mar ma dem laaj leen ñu ne en fait kenn du ko jël ma du ma joxe caution 250 000 ak lettre bi dugalaale aussi sama renouvellement licence alors bi ma paree loolu ma laaj ma laaj euh, directeur administratif parce que man lu ne dafay tegu si yoon naa lii ak lii ak lii mu bu fekkee ne loolu dafa am. loolu erreur la parce que yow mënoon nañu wax ak yow parce que xam nañ ne ñu ngi en contrat ak yow même bu dee dañ leen delloo licence ñu ngi en contrat ak yow waruñu jël beneen avance waxuñu ak yow mais ñi ko def manager ba ak Abdou Lahad Ndiaye bi nga xam ne moo montel Baba Diaw journéem Abdou laxaat xam na ne Kao Cissé 2 ak ak Cheikh Tidiane ñaar ñoo waroon bëri il le sait lu tax woowu moi j'ai très bon rapport ak Abdoulaye Khat Ndiaye mais làmb dafa compliqué quoi toujours et il que laaj naa directeur administratif et il m'a dit que bu fekkee ne certificat de guérison bi dugg na da ngay am 90 jours pour organiser leen bu 90 jours yi passé te organiser woo en ce moment là da ngay wut sa journée pour organiser leen mais du tere ñoom mën nañ jël avance mais il faut 90 jours yi jàll mooy ñetti alors comme ñoom respecté wu ñu ñetti weer yi. te respect affaire bi fin de saison la woon donc respect ñetti weer yi mu ngi commencé premier octobre hmm. octobre novembre décembre te Baba Diaw su ma juumul mu ngi mu ngi commen programmé le 25 donc jour jour boobu le 25 cinq Cissé du si bëre hmm. ah non du si bëre. mooy opposé mu bañ ci bëre. bañ a day jël uti jëli këram man may uti jëli sama kër bokkuñu dara. làmb ji lañ bokk faale moo joxe nañ seen avance ma bàyyi leen ñu bëre du am du ko def je vais faire mon courrier déposer ko CNG sama veto mënul bëre le 25. ñu bu soobee yàlla. loolu leer na léegi fi may jeexal ak yow mooy euh, le cas de ministre de Matar Ba ku ne xam na ne moo yoroon ministère bi pendant huit ans ministre des sports euh, tey président Macky Sall wàcce na ko bi mu ko wàccee nag wax yi bari na. yow nga nekk ci côté làmb te xam nga Matar yaakaar naa bu baax a baax a baax a baax jële bi ko fii président Macky Sall jële indi fi Yankhoba Diattara gis-gis bu si jag sa am ah Matar moo doon suñu ministre bañ ko daan wax ministre làmb loolu moom ñëpp xam nañ ko euh, vraiment il nous a beaucoup côté làmb bi bu ko waxal yàlla rek voilà donc def nañ fi ay gala mu présider ko di jàppale ku nekk ci côté làmb ji gis nañ ñu organiser yëf yi pendant huit ans il a fait du bon travail ci sama gis-gis alors côté football bi aussi dañu mës a dàq te mësuñ ko am mooy Coupe d'Afrique ci yàlla ci moom la abnégation am ak góorgóorloom ak nit ñi ci jàpp yëpp di liggéey ci lañ ci ci moom lañ lañ lañu ko yàlla joxe donc muy ndam bu rëy mais nag Matar ndong la Matar du Macky Sall il faut que nit ñi xam loolu dañuy jaxase lu bokkul Matar ab ndongo dong la. ndongooy Macky Sall la Macky Sall mooy président de la république moom la fal moom mu seet ñi ko neex mu teg leen bi muy jëli Matar di ko andi fi ku xamoon Matar ah mais moom xamoon na ay qualité Matar andi ko teg ko Matar di liggéey liggéeyam ndànk-ndànk di liggéey liggéeyam ñu koy apprécier ba fi ñu egg ñu egg fa ba ndam yi mu am yëpp mu am ko. tey président de la République bi nga xam ne moom la ñu fal mooy def gouvernement am te gouvernement bi mënul nekk di ministres lan ne ci xelu Macky Sall kenn xamu ko ci ñun kenn ak ñii ratatati di wax yëpp ñii ratatati di wax dañuy wax lu ñu xamul dañ def attention affaire nguur la amadu Ba fu mu nekkoon wàcceewu ñu ko fi wàcce ay moromam est-ce que dégg nga leen ñu wax dañ ne xuum noppi. ñëwaatul tey nekk premier ministre mat danga xam Matar Ba lan lay dencal euh, euh, <laughs> ma ma euh, astafurlah Macky président Macky Sall lan lay dencal Matar Ba kenn daf ko xam affaire nguur moo demee noonu. kon ñuy wax ne dañuy bind pétition dégg naa ñuy wax dañuy bind pétition. xaw bu ñu defee pétition du wàññi tous Macky Sall lijjantiw leen sax te dañuy gën a andil problème Matar Ba seen yoon nekkul si diggante Macky ak Matar Ba. Matar ba booyu Macky Sall la booyam la booy sama booy ñoo bokk seen Fatick yàgg am ay lien seen diggante yu profond nit nit ñi mënuñu xam li ne seen diggante li tax Macky Sall wàcce ko moom moo ko xam xamuloo lu mu koy dencal ëllëg nañ ci teey te ne tekk bañ a jaxase ay carte naan dañuy pétition ak dañuy marche ak dañuy lële président la lay wàcce tey falaat la ëllëg ci leneen lu gën a garaaw loo si xam duñ ne tekk tey mën nañ def pression ci président ba mu def lu ko mu warul def nañ ne tekk Matar la ko waroon la mu waroon def ca mission gëm naa ne def na ko en tout cas ci man li ma gis. def na mission ci li ma gis man. ci li gis ak li ma yëngu. Mhm. def na si mission la neex sénégalais yi yi ëpp. def na si mission ba ñu àndi ndam. Mhm. léegi nag <laughs> Macky Sall mooy président Matar Ba mhm. ab ndongoom la. ab ndongoom la. Yankoba moom looy xaar ci moom foofu laa jeexale ak yow ki ko remplacé muy Yankoba Diattara a ah, lu may xaar ci moom président wóolu na ko ba mu war a remplacer Matar Ba kooku mu am problème moom Yankoba Yankoba moom hmm. jógee Thiès ah. kooku am Ba li mu réalisé yëpp hmm. ah yàlla yàlla may ma Yankoba mu raw mu def lu ko raw mais du yomb de lu wóor laa la wax nag du yomb waaw Matar dafa yàgg ci benn position fexe ba fédéré ñëpp te loolu jafe la parce que huit ans def na ko ci ministère bi ban ministre ministre ban ministre nga fi gis mu def huit amul amul benn ministre fii de la république depuis man ba la ma fekkee Senghor ba tey bu toog benn poste huit ans amul fenn moom dong moo ko mës a def di nekk ministère de sports ministère bu jafe bari problème bari wax muy fédéré di gérer di fédéré di arranger ah di defar ba egsi ci résultat yi mu egsi ñu jëlee ko fa teg fa keneen man ko laa tiital billaay moom laa tiital <laughs> ndax ndax ndax la la Matar réalisé ah, ah. yàlla yàlla may ko mu def lu ko raw mais daal du yomb de du yomb waaw di ñaanal Matar nag jàmm ah. li si kanamam ah. yàlla na dàq li mu paase ndax jàmm lañu ñu séq daanu ñu recevoir bureau ñu discuter ci ay point bu amee daf lay déglu nga laaj nga wax sa position maa ngi fàttale ko bi ñu tëjee Iba Mar ñu ñëw fa di kaas di di di ñaan si di njekk njekk pour ñu ubbiwaat ko mu déglu ñu ñu génne ay argument man man sax maa doon wax ma génne argument mu déglu ma mu yàgg mu ne d'accord naa dinaa ko ubbiwaat ndax argument yi yi ngeen yi nga ma wax motif yu yu valable la pour ñu ubbiwaat ko mais nag bu leen wax dara man mi nga xam ne maa ko décidé maa ko tojoon maa koy ubbiwaat man maay am pour expliquer lu tax ma koy ubbiwaat ndeysaan loolu moom fekkee naa ko dama koy témoigner ni da ngay li nga xam ci moom ci lu baax loolu la yàlla wax waaw. voilà waaw. kontaan maa leen gën a kontaan yéen ñëpp yàlla na yàlla defal leen jàmm. di woo amateur yëpp. ñu wuyu si waat comme ni ñu daan wuyu mu nekkaat fête bu rëy. Iba Mar Diop incha allah samedi. ak Mbaye ak Momo ñu duggaat ci affaire bi. yëf yi yëngatuwaat. yëngalaat affaire voilà <laughs> merci beaucoup.